li mo dal jël ko tout de suite yóbbu ko hôpital luñ la fayé ko nga wax mako est-ce que bu baax. jëm na diko jëli. ah il appartient à voir que ñoom ndaw si. ñu accepter ndaw si hmm. wala accepter ñu ndaw si légui nak bu féké wax dëgg yalla dañuy jël si euh, malatam du dem ndax lañ may pas lay xaar wala ay na ma gëna hmm. lool tamit. Hmm, mais Sénégal. il faut ngeen organiser wu. li ñu xam. yow mi ñu xam la ñuy saaga copieusement. Mm. ba nga génn ba leeral. ñu soog wax. Ah. mais on parle de façon générale sax comment faire. Mm-hmm. Euh, ah oui non on <laughs> insulté pourtant. Mm-hmm. ni ma dañ koy jël en charge. Mhm. sa carnet d'adresse ngay mhm. utiliser. mais mais nag après. d'accord yàllaahu yaxlam. yàllaa xam waaw léegi. parce que mutuelle bi war na mun a am. aywa mais euh, li nga xam ne aussi mooy. il est il est waaw nee nañ am na mutuelle des artistes. mooy mooy Youssou bi mu demee Japon xam nga gagné